borom Touba xanaa di jël kàddu rekk ci euh, turu kuréelu julli géej gi ci ndigalu euh, ki nga xam ni mooy jórin bi di soxna Soda di ñaan suñu borom yagal ko suñu kanam di ñaanal sëñ Youssou job euh, personne moral bu is bu suñu borom yagal ko fi mu yag te wér man nak mi jël kàddu may Ibrahima job di secrétaire général adjoint ci kurel gi di président aussi comité scientifique bi ah li nga xamné ne ñu fi dajalé ren moy dañuy magal 29e édition euh, fateliku bi nga xamné mom lañuy la julli bi nga xamné señ bi julli won nako ci géej gi sur l'océan Atlantique en 1895 loolu moo indi 21 euh, septembre rek 20 septembre bu ci ne ñu organiser ko fii ci plage u Jàmmalaay si si Ndakaaru ah programme bi ni mu tëddee mooy si àllarba bi nga xamante mooy le 20 moom la ñu jox bis boo xam ne bisu Baay Faal yi la loolee nag bu ñu xëyee si suba gi a ah, ba ba guddi gi Baay Faal yi ñoo siy yëngatu waaye ci biir yëngatu boobu comité scientifique bi def see am cër mooy dañuy organiser li nga xam moy panel bu ñu defee vernissage ak exposition bi ba paré ci ndigalu xalif général des Baye Fall nga xamné ni mom day yónnee représentant mom moy and ak ministre de la culture ñom ñu def vernissage ak exposition bi bu ñu panel day am à 21 h panel bobu nak comité scientifique bi mo koy organiser at bu nek té ren gi ah, thème central bi nga xamné dañ ko jël dañ ko dëppale ak discours bi nga xamné mom la Cheikh Mountakha Serigne Touba Serigne Mountakha def yàlla na fi yàgg te wér defoon ko ci korité bi ñu génn te mu jëm ci ndénkaan yi nga xam ne moom la def jëmale ko ci ndaw ñi loolu moo tax ñu jël ren thème mu centralu euh, julli gi def ko ndénkaan yi nga xam ne moom la sëñ sëñ Mountakha jëlee def ko jëmale ko ci ndaw ñi a ah, loolu bi mu amee ñu jël ñaari sous boole ko ci biir benn sous bi dinañ ko développer ak ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy jóge Touba jóge ci Rawdun Mahadin ñooñee nga xamante ni tey sëñ taxa moo ñu booleeg ñoom ñu ñëw war a def panel bi waxtaan si suutam bu njëkk bi ndax dañoo seetlu engagement bi nga xam ne muy l'élan d'engagement bi nga xam ne moom la jeunes yi jël jëmale ko ci li nga xam ne moom mooy jotaayu Serigne Touba loolu bokk na ci thème bu njëkk bi nga xam ne dinañ ko développer yaakaar bi nga xam ne jeunes yi am nañ ko ci biir ak li nga xam ne moom la ñuy xaar ba mën a tax tey ñu am yéene daw jëm si sëriñ bi loolu bokk na ci waxtaan bi nga xam ne bëgg nañ ko ameel si bis bi nga xam ne mooy le 20 buñ démé ci le 21 muy bisu julli bi nga xamantene señ bi sa su day yebal señ fallu bu señ doomu señ mu mu abdou xadr mbake koku ci bopam mom moy jité at bu nek fi donc mom moy ñew jité julli takusan bi ndax julli bi ñuy ko kat julli farata la bu señ bi defon si julli si geejgi ci si yoonu geejgi kon lolu moy programme bi nga xamantene ne nañ ko le 21 le 21 bobu tamit commission scientifique bi amna ci panel digënté 3 heures jëm 4 heures ñu siy waxtaane beneen thème boo xam ne tamit dafa lamb jëm si jeunesse bi muy li nga xam ne mooy yaakaar bi nga xam ne jeunes yi bu ñu ko amee ba pare ba daw jëm si sëriñ bi lan mooy solution yi sëriñ tubaa indi jëmale ko ci li nga xam ne mooy jafe ndaw ñi loolu bokk na ci li nga xam ne bokk na ci waxtaan bi ah bu ñu demee ba ci guddi gi am na conférence boo xam ne nag thème central bi ma waxoon muy ndenkaanu sëriñ bi jëm ci ndaw ñi sëñ Bousra Samb war na ko waxtaan ànd guddi gi ak sëñ Xaadim jërë ngeen jëf What's up,